jóge nañu unité 20 ñu ngi ci unité set ba tey mu toppaat daara yi comme na mu ko daan defee donte saison bi tëj na duñ jóg ci di ko wax ku ne xam na ni corona bi ak ni mu demee daara soxla na set ak cell donte du fa jóge ndax bu ñu nee alxuraan rek set ak sell ca la jóge waaye Tapha dafa jël li nga xamante ni mooy jumtukaay yi njort ni mooy setal doomu aadama boo tilimee raxasu saabu lañ ca taamu boo xiifee lekk bëgg nañ ca ceeb bu la sedd bëggee rey nga sol lu diis kon Tapha dajale loolu lépp di jëm ci daara yi ñu ngi ci di 17 Tapha ba tey ci yow la ñuy njëkkee dooree dem ci sëriñ bi Tapha lu tax ba tey daara yi waaw di waxaat asalaamaaleykum di wax auzu billaahi mina sheytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaar waajur bu baax di sant yéen ñi nga xam ni ñëw ngeen fii di nuyu samay xarit yi nga xam ni man ñooy nekk sama ginnaaw saa su ne su ma amee xalaat ñu dooleel ma ci ñoom it ñu indi seen xalaat di ma ko jox ñoom am naa fawandool màggandool daara boo gisee ñu ñu ñëw ci parce que tey daara mënoo def mënoo am lu ëpp daara parce que tey ku judd da ngay yóbbu sa dooma sa doom mu jàngi ji alxuraan te ñun daara yi nii ñun ak ñoom danoo yàgg waaw ñii ñun ñoo ñu yar bi ñu nekkee xale di foo seen kanam màgg seen kanam tey daara bu fi amee ñun tey am amaan na ci làmb lañ ñu xam ñuy góorgóorlu as tuut bu ñu am war nañ koo mën a bokk ak daara ji jox leen ay jumtukaay sedd bi ñëw na. ñu joppalee leen ko parce que tey da nga daan gis mbër saison di tijji ñu def ay Tandber ñi di def ay Mumbai ñu ne pourquoi pas lépp sama président fan club Maurice li ma la waxoon daanaka moom chrétien la mais yàlla dafa def xol bi dafa rafet ba pare moom chaque jour de dox ci social bi affaire yi di waaj a tijji mu ne moom pourquoi pas ñu def social xool daara yi fi nekk fii xam ne ni comme bi mooy première édition ñu ngi tàmbali ñu xool a ñu xool lu ñu leen jàppalee ci yére sedd parce que xale yi fajar gi ñu jug di jàng ak yenn heure day sedd ñu jàppale leen loolu looloo indi tey suñu tànk fii. man nag dama naan xanaa tey da fay boru sa turandoo. Alaaji Moustapha Gueye ca waaraate ga est-ce que du looloo wel tey ci Tapha. waaw amaan ñu bëri xamuñ ni Alaaji Moustapha Gueye mooy sa turandoo mi waaraate. la parce que amaan ñu bëri xamuñu ko Alaaji Moustapha Gueye mooy sama papa mooy sama turandoo te sama papa Mor Touré moom xam nañ ko moo yor juma fan ok fa lay jiite El Hadj Moussa Gueye xam nañ ko caaro yi moo fay jiite daan waaraate RTS yoroon ujaaji xam nga mu ñun tey du ñoo delloo mbaatu ci ndaali rek moo tax am na loo xam te ne dinañ turandoo da nga ciy jël xaw ma ñaata jikko. <laughs> boo xamee wax <laughs> waaw loolu da ciy am mais lépp rek bu dee da am ay mag yu baax mun li ma la wax. ñiy jàngale ci daara yi daanaka ñu ci bëri ñun ci seen kanam lañu màggee ñun buñ gisee ci ñoom exemple yu rafet rek ñun buñ ci toppee rek def nañ lu ñu war loolu moo indi ñu defaat lii rek di santaat yàlla ñaan yàlla lépp lu luñ ci mën ren rek balaa déwén yàlla nañ mën lu ko raw ndax ñaan nañ yàlla lépp lu ñu am suñu xel di dem ci ñoom comme ni suñu xel demee ci ñoom nii incha allah. kilifa gi ñu ngi lay siyaar. kañ alhamdulilah yal na yàlla nangu siyaar ñu ngi leen di ndokkeel di wax alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilahi xaq xamdihi alhamdulilahi xaq xamdihi ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci nant bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ndokkeel yéen gan yu tedd yi nga xam ne macha allah tey yéen a ngi ñëw gane si daara waaye gane see daara li daara soxla mooy ndimbal macha allah ñu toll ci jamono joo xam ne daanaka daara mënatul génn yalwaani kon ki toog ba xelam daj ko mu jog wuuti si ko ngir ndimbal def na lu rëy loo xam ne moom la mu jëf sax xamu ko li tax ma ne la mu jëf xamu ko damay wax jamono june ni kiy jëf mbaax moom mbaax du dara ci moom ndax daf ko am wala mu man ko di ko def waaye kim ko jëfal kooku mooy xam li mu ko defal ni mu toll tey su fekkee ne dama la romb jël sama cent franc jox la ko maa xam fi cent franc yi jóge maa xam wàññi na ma dara wala wàññiwu ma dara mais yow mi ma ko jox fekk nga soxla woon ko yaa ngi bëgg dem amoo loo paase wala yaa ngi bëgg a amoo ko cent franc yooyu bu ñëwee ci yow na mu toll ci yow noonu lay toll sa diggante ak sa borom kon jëf ci daara ak nu mu toll rek wallahi ndonte benn dërëm la ku xamoon dayo bi ci toll macha allah li lu rëy rëy la. ñu ngi leen di nuyu bu baax di tàmbalee wax ji foofu di déglu macha allah seeni laaj ah, ñu jëm cee tontu comme ni ngeen koy laajee macha allah. waaw euh, donte Amdy Moustapha ci làmb lay yëngu. di mbërub làmb ku ne gis nañ leen dal wala dama naan li dal àdduna gàllankoor liggéeyam waaye xool na ci ñaqam ak ñi muy àndal xalaat daara yi ndax mbër mus naa toog ba mu yàgg xalaat daara bi comme nii la tafaa tey ñëwee ci yow mel ni dalaa bett. waaw ëwalan mën naa am yàgguma fi nag samay at moom mën naa am lool. waaye maa ko soog a gis nag ah, mbër mu ma seet si ah, ñëw ne ma dama bëgg dimbale daara ji maa ngi ko soog a gis yenn saa yi nag ma am ñu ñëw ne dañoo bëgg ku ñu ñaanal waaye lii moom maa ngi ko soog a gis wax dëgg yàlla muy xalaat bu rafet ci xale moo tax suñ xel mi ngi dal ndax nit damay faral di wax ne nit ki lépp lum ne rek nattub yàlla la ki ci làmb ji def ko muy métti yàlla moo ko ko nattoo waaye mën naa am bu amoon leneen loo xam ne mën na ca daan ñaqam mu dem ca la ca nekk rek te am ci solo toujours ma koy wax mooy boo ca jógee rek fexeel jaamu ji yàlla la ca des nga rafetal ko lii nag bokk na ci li nga xam ne jaamu yàlla la ñaq wi la yàlla jox nga jël ko xalaatoo fenn lu dul xalaat jëmale ko ci yàlla ah, ahlul quraan ahlullah ñooñ alquraan ñooy ñooñ yàlla kon képp ku jël def ci ñooñ alquran jël nga saalal jox ko yàlla yàlla mi nga jëflanteen nag balaa ngay xam ne ki balaa ngaa xam ki nga jëflanteen ni mu tollu nga am sa bis boo xam ne soxla nga ci ndimbal bu keroogee ngay xam ki nga jëflanteen ni mu toll. dëgg la jamono ji métti na nag xat na lool ndax ko daan yëngatu ci làmb mbir yi taxaw na ak yeneen ak yeneen yi taxaw bëri na. xataa daara yi sax yu bëri gàllankoor nañ leen waaye nañ delluwaat ci yàlla yàlla mi nga xam ne moo gàllankoor mbir yi dina delloosiwaat lépp. kenn ku ne la nga nekk nga yëngu ca te rafetal ko dellowaat ko ci yàlla Moustapha nag tàmbali na ko macha allah lii ku ko gis ca xale buñ ne ci làmb lay yëngatu ah ak ku mën a doon rek sa xel dina dal bu fekkee jaralutoon la nga kurus bu ca jëmati nga ñaanal ko ndax lan amat na bu amee komba ba am ca ndam dana dimbale si sama daara defut ko bu fekkoon ne dafa xaar ba am komba soog koo def wala mu dem bëri ji ba ñëw soog koo def damay wax ne waaw kañ man naa am dafa jekku soog koo def waaye dafa jekkoogul ba pare def ko kon ki ki jekkoogul ki taxawagul tàmbali lii boo ko ñaanee bu taxawee def la ëpp lii kon ahlu quran ñun ñëpp ñu ngi lay ñaanal lépp loo yëngatu suñu borom defal la ci ndam zahiriyan wa batiniyan wax dëgg yàlla lii daal fees na suñu xol kontaan loo nañu bégloo nañu saabu lu daara soxla la ceeb lu daara soxla la yére rawatina lool sutura bi yére am ci nit yal na yàlla sàngi la sutura noonu ci métti mi nga nekk incha allah te danga xam ne yàlla dina la defal ndimbal te kenn du ko def li nga jëf moo tax mën naa am xeeb nga ko nag li may li ma wax nii ne xeeb nga ko dama mës a jëfal nit mbaax booba maa ngi ci àll bi comme Saalum la dëkk moom xam na loolu. seret laa yor romb benn paa bu màgget ma ne ko yéegal ñu dem. keroog daf ma wax wax ju xam ne damay xalaat ba ni ma yegg fi ma jëm njëriñ li ci nekk. dafa yëg ci seret bi ma wàcc njegenaay bi ma toogoon ne ko góor gi toogal. ñu dem ba mu yàgg muy wàcc yàlla dogal ma yor 500 ma jox ko ko. mu ne ma doom tey ngay xam ne danaa la boole ku la gën a baax. ma ne tekk di ko déglu. mu ne ma lu waaye def ci mbaax rek yàlla tax te yàlla gën a baax ñëpp kon lii nga def dafa toll noonu ci ñun jëf ji dafa rëy ci ñun lool ndonte suñ dëkkandoor la suñu mbokk la ndax moom ak sama rakk Abdoulaye Ndimbalaan yàgg nañ lool depuis ñuy ndaw boobu ñun ña nga ca daara ja ma ñib si ci daara ji jamono ju ne ñi fi ñëw di ñu fi fekk kon suñu rakk la suñu rakk la yëngatum suñu yëngatu la bu jógee nag jëm ci daara yi yàlla dogal magam yor daara mu jaar fi kon delloo na wattu ca ndaa la macha allah lii mu def lu mu war a def la yàlla na ko ci yàlla fay yàlla dolli ko ndimbal macha allah. Tafa comme li ussas bi wax ñu dégg ko di ay kàddu yu soññe dama naan Maurice mi la xalaat looli wala ngeen ànd xalaat te bu ñu waxee mun nañ ne bokkuñu religion waaye baax amul fenn religion bu ko soxlawul tey mu xalaat li Maurice dégg nañ lu oustaz yi wax fa ñu jóge ak kii ñu fekk si. waaw comme ni mu ko waxee sànq rek. fii dañ fi juddoo màggee fi yaroo fi xale yi dañoo yàgg foo ak ñoom am fi ay mag am fi ay rak kon yaakaar naa bu ñu amee as tuut xalaat leen rek suñu bopp lañu xalaat ndax tey yaakaar naa nit tey sa mbokk sax sa premier mbokk sa dëkkandoo la ndax sa mbokk mën na la sori mais bés boo amee problème say dëkkandoo ñoo njëkk ñëw dafa bu amee combat dëkkandoo mooy njëkk ñëw balaa ku dëkk Saalum wala keneen di ñëw kon tey loo mënta am rek yaakaar naa war nga toog leen xalaat. te si yëngu social moom fans club bi ak Tapha dañ yàgg muy set setal muy leneen ak leneen loo xam ne yàgg nañ koo def ci loolu. ñëw ci daara yi nag bii première édition la ñu xalaat ko ñëw seet si suñu mbokk yi suñu rakk yi suñu dëkkandoo yi ndax ñoo ñoom ñoo dëkk fii muy 17 muy 20 ko ñu ñoo jàkkaarloo kon naa de ñaan mu yokk ñaanal Tapha tam mu gën a jëm kanam ñaanal xale yi fi nekk tamit yàlla sàmm leen te incha allah xam naa dinañ fi ñëwaat xaw ma kañ lay doon peut-être dëwën wala balaa déwoon sami dañ fi ñëwaat incha allah ndax lu ñu def xeeb nañ ko mais dañ yokk doole ñëwaat jërëjëf waaw Tafa dégg nañu kàddu yi tey lan ngay ñaax sa mbokk mbëri wala say moroom yi fi nekk donte tawat gi dal na ñëpp waaye jóg nga bii di sa première édition woote woon nga ci wala woote woo ci buñ ñu ko leerale dinañ ci xam dara ban kàddu nga leen ñaax ak tey mbégte gi. waa di santaat yàlla rek parce que tey ne nañ la xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak ay mag ñun yàggaguñ ci làmb ay xale lañ àdduna sax amaan na yàggaguñ fi mais tey di ànd ak ñu baax dalay dugal ci lu baax parce que damay sant samay xarit ñi nga xam te ni ñoom laay àndal ñoom ma njaay topp Amadou Diop xam ah nga ñoom dabaax Maurice xam nga kii jaay na ordinateur am gi sama làmb ne wax naa la ko sànq même fayu école am def na ko sama làmb maanaam am na ñoo xam te ni suñ defee lu baax da nga koy koy yëg te am na ñoo xam te ni day dugg si man moom ñoom mënu ma leen wecceeg dara ak sama staff bi mun naa ne ñoom ñoo may conditionné lii dama koy digal képp koo xam ni yaa ngi ci millier boo xam ni mun yàlla mënal na la ko mais nga def ko parce que ndongo daara yi ñun nag ñoom benn lañ. yàlla def na ñun ñu ngi ci kër di yeewu di dëkk ak suñuy waajur ñoom ñu dem nekk ci daara ja kon tey lépp lu la yàlla may war nga koo mën a bokk ak ñoom te ñoom ñaan mun nañ la cay ñaanal lu ëllëg nga am soxla bu metti yàlla ñëw wallu la. di sant yàlla képp kuy mbër mbër amul mbër mu ndaw ak mbër mu mag parce xel yàlla dina ko jox mag dina ko jox xale képp koo xam ne ko du mbër du lépp la ak ci loo mën ne di yëngu yàlla mënal la ko na ko def ñun nag bii mooy suñu première édition ñu yemle ko si suñu quartier ni karce bi nii kat comme suñu doole bareegul amaguñ yenn jàppale yi li ñu am as tuut nañ ko bokk ak ñoom ci suñu doole balaa déwén ñaan nañ yàlla xéwal gu yokk saawaan lépp lu def ren déwén double am wala lu triple am ba génnee ko ba mu gën a wër parcelle gën a wër yeneen secteurs yi xam ne ñu ngi ñu jege di ci lancer appel ñëpp képp ku ko mën rek yàlla na la yàlla jàppale may la xam-xam beeg xel bi nga def ko ndax daara mooy kër yàlla parce que yaakaar naa ne alxuraan la yàlla moom. waaw kon nag képp ku def foofu lu baax yàlla dina la ko fay ñu ngi santaat sunu sëriñ xam nga ndax moom sunu mag la ndax ñu nag ay rakam dafa noonu nañ ndaw moo tax ma ne leen lépp lu ñu am tey dañ ko bokk ak daara yi nga xam te ne ñu ak ñoom dañoo jegante pour ñaan yàlla yàlla xéewal ñu ëllëg ñoom ñu jox leen lu gën a bari lii dem ci ñeneen ñi nga xam te ne jege nañu wala ñu wër ñu ñu jox leen ñoom tamit ci kàttanu yàlla. man taxaw dafa mel ni fa la ñu yëkkatee kàddu yi waaye ne ma naan oustaz mu boole ñu ñaan surtout ñun ñu nekk ci waxukaay gi nga xam ne accident bu ne mun nañ ko constaté sauf accident wax ma bëgg nga ñaanal ma mucc ak ñii ñu àndal ñu mucc tey muccule alxuraan am na ko mën na ko yàlla na nu ko boole te nga ñaanal ñu mucc. alhamdulilah yal na yàlla defal leen ak mucc. ci yëngatu yi ngeen nekk. dëgg la néew na koy dox te doo fakkatalu néew na koy wax te doo juum. macha allah waaye yal na yàlla musal leen. ci accident wu wax. ak accident wu dox. ak accident wu jëflante yàlla mën na ko yàlla nu ko def. bu ko defee ñu bokk ñaan Moustapha bég nañ. bég nañ yal na yàlla bég nañ yal yàlla bég mooy samp yàlla na la samp yàlla mooy dëgëral yal na la dëgëral yàllaay sàmm yal na la sàmm ah yëngatu yi ngay yëngatu jamono boo ci amee komba mm. yàlla la yàlla may ndam ci mbaaxu yàlla sañ naa koo ñaan ndax sama rakk la sañ naa koo ñaan sama dëkkandoor la sañ naa koo ñaan ñoo bokk kër kon am naa droit ci ñaanal ko képp ku songool moom buy bëre yàlla na ko daan ci mbaaxu yàlla yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal bisimilah aousubillahi min asheytan irajim bisimillahi arrahmani irahim nasrun min allahi wa fathun qarib alam nasra laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqa nadharak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa iza faraghta fanzab wa ila rabbika farghab